amul fondation amul Youssou Ndour amul dara amul daan mbir mi rek moo fi am daan mbir mi moo fi am ñëpp war nañ nekk sa ginnaaw ñëpp war nañ nekk si ginnaaw président de la république pour daan mbir mi ndax junj doy na boroom xel feebar bi wax nañu ne que du feebaru tubaab wala du feebaru nit ku juul feebar buy dal nit la yàlla nañ ci yàlla musal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla lii yam fi di ñaan yàlla lii yam fi di ñaan yàlla lii yam fi di la wax sunu solidarité di ko wax waa réew mi yëpp di ñaan waa réew mi ñu àndandoo doon benn ngir lii musiba bi nga xam ne yàlla da ko wàcce ci àdduna bi te Sénégal laal ci mu yam fi yalla musal ñu ci loolu dal mo taxoon ñu ñew di la bëggoon nag wan li nga xamé ni ko wala voilà wax ko nga jox ko remède symbolique bi dañ lay wax rek ne la momit bobu batay togul taxawul taw wona ñep ñëpp barki démb rek dañu dem ministère du tourisme and ak natangom wo atelier yëpp mu wax ak ñom kenn ku ci nek ñu waxtaan ci ni ñu wara taxawé ku nek nga xamanteni bagage nga wara wut ci sa biir hôtel wala pour teelu say gan nga taxaw ci ba paré nak Nous devons rencontrer le rencontrer ministre de la culture avec les acteurs culturels Nous devons rencontrer M. Omar avec les élus ak conseil départemental les communications traditionnelles, Abdoulaye Mbaye Fama Mansour nous ñu de ci kaw mu recevoir wàllu paj mi docteur yi la waaye wàllu waxtaan wi média yi tey am nañu rôle yu mag yoo xamante ni moom la ñu war a joué waxtaan ak nit ñi expliquer leen wax leen ni ñu war a def ni ñu war a raxasoo ni ñu war a tisoolee ni ñu war a sëqate ni nga xam ne moom la ñu war a veillé ci xale yi nga xam ne ñooy doom yi nga xam ne ñooy génn ci mbedd mi di duggaat ci kër yi kenn ku nekk ni ñu la war a defarale li ñu la war a defal ak nag produit yi nga indi tey nekk yu am solo yoo xamante ni bi wóor nañu ne buy wàcc buñ koy divis buñ ko distribué tey tey mu mën a jeex tey kooku mooy Abdoulaye Diouf Sarr Sénégal yëpp ànd ak yow